Thank you. asalaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet toujours le plaisir d'obtenir l'info et de le partager quand même ak yéen ñi nga xamante ni yéenay suñu mbokk internautes yi mais on a également le plaisir de recevoir des talents votre émission talent à l'honneur vous revient saa su ne ngeen ci ànd ak Ousan la banlieue dakaroise et le carrefour des talents mais ce garçon qu'on a invité ce soir il le talent parmi les talents de son vrai nom Momar Gueye alors xale boo xamante ni ñu ngi ko découvrir ci benn concert bi nga xamante ni yéen ko gisandoo également ci concert u Sidi Diop mu daal di fay yéeg way ba Sidi kontaan daal di koy tingoom yëpp naan xale bi kan xale bi kañ lañ koy gisaat enfin gisaat ngeen ko fi nga xamante ni moom mooy Dakarnet ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd talent à l'honneur alors Momar ah. balaa ñuy yaatal waxtaan bi mm-hmm. macha allah bëgg naa nga nuyoo ñu ak woy waaw ñu bégale ci suñu mbokk internet yi xale bu ci réglé ba ñu mayala car se ku wayala baara mbaay xale bu ci réglé ba ñu mayala Abdou xale bi ni muy woy dafa neex yokkal ko tuuti micro am vas-y car se ku wayala baara yow yaay car se ku ma woy baara mbaay xale yi di ko foowe ma ngi di ko foowe sama yaay booy ñaanal ma gudd fan ak sama yaay booy yaay booy si ku mën a wax ni mën na ma ñaanal ah kooku ma ñaanal ku sama yaay yaay booy ñaanal ma gudd fan ak ba ma dem mel ni ay ñoom si di job ba teral la sama yaay sama papa Mamadou Lamine Gueye maam Moussa Kala di sa yaay maam Mamad Gueye la sa baay yow jom si yow la fekk baax yi papa man de maa ngi lay ñaanal gudd fan ak weer ba nga fekkee may njariñ yaaw Pape eh, Koudel Van. ndeysaan ndeysaan ndeysaan du ma jooy ah parce que fii gars da dañu may may faral di wax loolu bu ñu fi invité koo xamante ni dafay waye nii man sama yaram dafay daw mais tey dinaa téye sama bopp ba du ma jooy parce que tout simplement da nga da sargal sa yaay wax ni ku lay ñaanal. Ah, ñaan ba lu mu am doole doole sa ñaanu yaay moom moo ko gën donc mm. euh, macha allah comme quoi que ni loo nekk nekk xale loo nekk nekk mag war nga fonk say waajur bu baax a baax gis nañ tamit nga bàkk sa papa mais balaa ñuy ñëw sa diggante ak say waajur alors pour sénégalais yi nga xamante ni xamuñu Momar euh, kan mooy Momar boo ñu doon wax Momar kan mooy Momar fan la dëkk. ah maa ngi dëkk Malika. Mm-hmm. Mm, waaw ndax concert Sidi Diop moom mooy dëkk yëgal kaw seen. Mm-hmm. waaw di ko nuyu di ko ziar. Mm-hmm. bu baax a baax di ko sant. Mm-hmm. ndax bu dul woon moom bu woon moom tey. Mm-hmm. kon tey kenn du ma dégg. Mm-hmm. kenn du xam Momar. di ko sant di ko gërëm bu baax. di sant samay ñaari waajur. bu baax a baax. alors Momar la moo tax nga calme nii te pourtant booy woy da ngay graaw mais booy wax da ngay calme nii fii xola euh, relaxé la ah, defal lu la neex firi ah comme ni nga fiire woon ci concert bi d' accord. waaw ah. alors ñaata at nga am déjà. 12 ans 12 ans nga am xale nga ban classe ngay def yaa ngi jàng. waaw ban classe ngay def. c C2 alors Momar lan mu la dugal ci way man mhm. ah bëgg teral sama yaay mhm. loolu dong ma dugal si way mhm. bëgg teral sama mbokk looloo ma dugal si way bi bon bu weesoo loolu lan ban danga am passion wu def musique da nga wala nekk da ko doon si say maam géwal nga wala lan Aliou Mbaye Nder sama nijaay la Aliou Mbaye Nder sama nijaay la waaw ndeysaan mook sama papa bokk benn yaay ndeysaan kooku kooku kooku kooku kooku ndaanaan la kon yow da nga a way boo waree da nga war a boo wayee da nga war a way boo wayul da nga a way waaw alors Momar ndax mar jot nga def comme par exemple gars yi dañuy def participer ci ay concours de musique wala juste da ngay wayantu si biir kër gi wala dangay dem ci xew di way wala dinaa dem si xew di way mhm. waaye li may dem du bari nii mhm. Mhm. li dem du bari waaw bu ma toogee sunu kër damay toog di wayantu nii Mhm. ndax ndax dangay dangay gën a am xelu xone si nii mhm. buñ la woowee fenn mhm. di nga am xelu lii li nga doon répété di nga am xelu wayaat ko da ngay nekk sa kër di foo pour mën a am pour mën a garder rythme bi mais également pour mu a am ay quelques notes yoo jàpp comme ça boo demee si spectacle yi nga mën ko proposer alors est-ce que euh, déjà say waajur way nga leen kon du ma la laaj ni d'accord nañ ci way bi ñu nangu nañ ci way bi ngay def nga continuer ko maanaam nangu nañ nga nañ la li nga bëgg a def muy way waaw nangul nañ ma nangul nañ la mais tout wax nañ la également nga jàng bu baax parce que jàng baax na ci way waaw mm-hmm. Mm-hmm. ñu may ñu ngi may jàngal mm-hmm. dama éduquer dama dama xelal dama wax loo xamoon ne si duma ko mos a def loolu lañ may xelal alors sànq da wax lu am solo bal sénégalais ñu ngi la découvrir ci travers euh, Sidi Diop si concert am bi mais sànq dañuy gis nga ubbee Thiat Thiat Seck sa diggante ak Thiat Seck naka la demee. ah Thiat Baba Mbengue moom woon ravin. Mhm. léegi ma ñëw. Mhm. léegi ma ni ma ni Thiat man de artiste mhm. bëgg ku ma jàppale bu baax. ndax moo dem ba teral sama yaay. dama commencé jël numéro di woo di diggante moom. dem këram di ka seet mu saa soo bëggee ñëw si kër ñëwal fii sa kër la ni ko waaw dama fay dem mm-hmm. dama fa gëj dama fa gëj mm-hmm. parfois da ngay dem ci ay soirée parfois déedéet demaguma soirée demagoo mais mais boo demee ci soirée gisoo ni mën na la yokk dara parce que macha allah da ngay woye comme moom même bu fekkee tamit yaa ngi jëlaale tur Sidi Diop alors fi ñuy fi ñuy avancer un peu comme ni ma waxee Sidi Diop moo tax ñu xam la donc sa diggante ak Sidi Diop loolu ci mën a wax Sidi Diop. daa baax na te yàgg dama kaa yàgg bëgg. Mhm. waaye naa ko nee naa ko dama laa yàgg bëgg. far yàlla far yàlla def lii. Mhm. ma ne taxaw di way. Mhm. si dafa baax. bu ko bu sañoon mu ne ma ne yow booy loo fii def xale nga demal ñibbi. fii loo fii def mais damaa ñëw waxuma sax xaaral. dana ma kaay ma ñëw. yéeg way booy lu neex. bëfa lu neex. waaw Momar foo xamee bëf ah. ndeysaan nga bëfa lu neex alors balaa balaa ñuy ñëw ci naka nga def ba egsi si si concert bi naka nga fa yéegee Momar mën nga ñu mayaat tuuti parce que fii tamit dañuy privilégié nit ki muy wane boppam. dañuy hmm. bëgg loolu ndax mën nga ñu acapella waatal tuuti soit ci sëñ Saali wala lu la neex li ngay woyantoo sa kër tey nga koy woy fii baa xam nga loolu <laughs> <laughs> alors may ma tuuti ma xal sëñ Saaliwu Mbàkke mooy borom njurul borom jàpp nan xabaan Tuuba xewle nañ boo demee doo mer ah, mooy borom njurul borom jàpp nan xabaan sëñ la ñuy woowee baayam ba sëriñ saaliw oo sëriñ saaliw yaay borom jurul borom jàpp nal xabaan sëñ tuuba sa baay ja moo julli woon sa géej ga moo siñe ba moo siñe biro ba ca Ndar yeey sëñ saaliw mbàkke fi nga nekk ñaanal ma fa man fi ma nekk nii di la way ba mu neex ah sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa ñaanal ma ma lay woy ba mu neex. ndeysaan sëñ Muntaxa ñaanal ma lay woy ba mu neex ce sont les belles paroles de ce garçon pétri de talent de son vrai nom Momar Gueye alors Momar sa contact ba nga ñëw ci concert Sidi bi naka la demee link bi ba nga egsi concert bi. Ah, sama mag moom a yóbbu mu ne ma kañ dem. Mhm. mu ne bu du woon moom. Mhm. du ma yëg Rama maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Mhm. moom bu du woon moom tey du ma yëg. yàlla na ko yàlla jàppale bu baax a baax. ndax moo tax ba mu yëg. forcé ma dem ba yëg. taxaw way. en fait lu ma bëggoon a doguma la lu ma bëggoon a laaj mooy. genre da ngeen ko programme parce que spectacle la spectacle day am fil fil de conduite quoi lépp lañ koy programmer ndax dañ la programme woon ci bis bi wala da ngeen ñëw ba foofu euh, rama lijjanti ko ba ngeen yéeg naka la demee exactement. dañoo ñëw ba foofu. foofu. waaw ah bon. rama lijjanti. rama lijjanti ko. moom dafa sob boo ko gisee ni mu gàttee noonu xam nga dafa sob fan la jaar loolu da ko war a moom Momar. daaw moom daaw ci kaw tribune lañ toogoon. ndeysaan. moom mu daal di wàcc. waaw lijjantil ma. ndeysaan. ba mu yéeg. ba nga yéeg. léegi nag ba yéegee après ji ñi nar maa toogloo foofu noonu. Mhm. léegi nag far. kii nii euh, sama sama benn mag. Mm-hmm. moo ma yéegal. Mm-hmm. mais moom boobu xamante wu ñu woon. Mm-hmm. yàllaa ki mbiram rek. ndeysaan boobu xamante wu ñu woon. ndeysaan mu daal di mu ñëw yéegal ma ba ma way. léegi ba ci ëllëg sam papa dem dem seen kër. léegi sam papa ñëw expliqué ma ko. ndeysaan xoolal rek yàllaa ki mbiram. maanaam grand bi daf la xamoon te yow xamoo ko. Euh, déedéet ñu ñaan ñëpp xamante woon. ñaan ñëpp xamante woon. Rama dafa ñëw daal ak làmmiñam bu rëy <laughs> di wax di wax ba nga yëg si kaw. waaw donc bizarrement affaire bi noonu la demee. Mm. et nit ñi dañu doon wax ni parce que nit ñi dañu jàpp ni soit benn doomu siidi nga boo xamante voilà da nga yàgg dem si soirée parce que ni nga ñëwee rek bëf ak ni nga ñëwee am benn freedom bi am fit bi xam nga dafa dafa impressionné sénégalais yu bees sénégale yu bëree bëri d'ailleurs alors bi nga yéegee amoo benn trac tiitoo tuuti. du tiit. ah la tax doo tiit. waaye fit la yow 12 nga fit la boo amul fit doo dem. ndeysaan. Mm. Mhm. bi nga duggee amoo benn parce que stade dafa feesoon nga ñëw rek ñëpp kii la loo xamante ni suma ma jëmul mosoo yéeg si concert bu toll noonu. mosuma yéeg si concert bu toll noonu. nga ñëw taxaw ñëpp di la xool bët yëpp di la xool ñëpp ni la jàkk amoo benn traat nga way loolu loolu loolu loolu bëgg naa nga wax ma si. Ah. waaye moom fit la. waaw moom hmm. fit doo dem. Hmm. ndax boo taxawee si mbooloo bi nekk noonu. Hmm. xoolal caméra bi. boo taxawee si mbooloo bi nekk noonu. nga insisté naan ni doo dem. doo dem benn. doo dem moo tax ma ñëw rek waaxoog micro bi dem. beneen beneen sens sax mi ngi naan la euh, mi ngi jël micro nga naan ko may ma tuuti lan la sa yaram moo tàngoon wala. bu damaa damaa bëggoon wan. da nga waroon bëggoon sa bopp. waaw wan waa Sénégal ni may Momar. ndeysaan Momar ñëw na. Momar ñëw bu Sidi Diop mais Momar bu Thiat Seck également. bu ñu wala ñu wala ñu woowee la Momar doomu Sidi. surtout oh. boobu moo commencé feeñ doomu doomu Sidi. waaw hmm. benn la rek. benn am na ñu may woowee Thiat Seck. am na may mhm. Mhm. benn la pourquoi ma ni benn la parce que Sidi Diop ak Wally euh, Safrula ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Thiat Seck ñoom ñaar benn la Guédiawaye benn la la banlieue dakaroise benn la Euh, Malika Pikine yëmbal foofu yëpp benn la alors Momar da nga ñëw yéeg man li ma xaw a yéeme tuuti mooy bi nga yéegee. Mm. ndax da nga préparé woon li nga waroon way dafa nekk sa bopp wala da nga ñëw rek improviser li nga way. damaa ñëw rek way. damaa ñëw rek way. Mm-hmm. Mm. ndax booy da ngay ànd ak tey ak dal. Mm-hmm. yow toppal temps bi rek. Mm-hmm. bu musa réeroog ñi lay tëggal. ñi beneen sens dama sentir gars yi la may vent benn vent lañu la may rek. ngay fo ci kaw vent bi noonu ko quoi carrément dañu may benn vent pian pianiste bi mooy laal dara rek affaire buy tànn noonu. Hmm. ngay ngay ngay way si kaw am dégg boobu noonu man daf ma daf ma surprendre quoi daf ma jaaxal dégg-dégg boobu lan la da ngay dem si répétition gars yi wala sa kër nga jànge loolu. sunu kër laa jàngee loolu. Hmm. Hmm. bu ma comme ça bu may seetaan ni. ay ay vidéo Sidy Diop. wala ay cateek. dama leen di déglu xam li ñuy xam li ñuy way bu baax. ak li ñuy def. foofu ngay jaar si seen seen ni ñuy woyee note yooyu ngay jëm a xaw a noo ko kóoroo pour pour mën a pour mën a tegu si temps mhm. Euh, ba léegi yéen ci seen émission talent à l'honneur comme ni ma leen koy faral di waxee ñun ay talent rek la ñuy invité duñ fa invité koo xamante ni amul talan et xam naa ni émission bi yéen ñi nga xamante ni yéen ci TikTok bi Instagram bi Facebook am ngeen loo leen TikTok am ngeen loo leen partagé ndax tout simplement am na benn capacité créative bu exceptionnelle bu nekk si moom ñu koy ñaanal guddi fan ndax 12 ans kase la am macha allah alors Mamar mm. bi nga yéegee Sidi daf mais li ma jaaxal loolu foog ma laaj la quoi daf ma dama xaw a tiit parce que yow jàppandu woo déjà. ah yow bi la Sidy ji tingoomee. Ah. yow jàppandu woo yaa ngi téye micro bi si bi di way. Mhm. loolu lu tax loolu. tegoo sa yow tegoo sa loxo ci mbagg Sidy de da nga nekk noonu rek di way quoi. de dama dama pousse ba pare ba képp. ba képp sama tànk yi. <laughs> booy yow vrai booy banlieue nga ne la ma leen. dama kaa képp sama tànk yi da loosu Sidy bi nga képp. Mhm. yow moo tax mu gaaw la wàccee parce dafa doon métti. <laughs> egg <laughs> Mhm. waaw ndax moom dafa baax. ndeysaan way naa lu way naa lu way naa lu neex. Mhm. mu tëngam ma. Mhm. démb rek génn naa ñu naan doomu Sidi Diop waaw di nuyu sama xarit yi bu baax a baax. ndeysaan di nuyu ndax ñoom. saay saay su ma demee programme di way. sama ñëwee dañuy ñëw foofu ci koñ ba zumbale yu xoo ne sama yaay kontaan sama papa kontaan. nuyu sama xarit yëpp. ndeysaan di nuyu Xaadim Mbacke. ndeysaan Hmm? Xaadim Mbacke Marie doo leen woy tuuti. Xaadim waaw en fait sa xarit yi quoi doo leen déggoo jukkal sa nga woy leen tuuti ay hmm. fàllu. waaw fàllu. Hmm? yow maa ngi woy sama doomu ndaayi waaw yéen de dangeen maa bëgg lool ma lu baax lu baax a baax yéen yéen ma ko Xaadim Mbacke. Dandoy lañuy woowee sa yaay boy Papa Talla lañuy woowee sa baay moom lañuy jooy noppeeguñu ak Fallu Njaay Fallu Njaay yow de danga ma bëgg di ma indi seen kër naan ka mamara ngi nii yaay boy mamara nekk nii dafa mën a way sama xarit la yaay abujo beey abujo beey maa de abujo beey ak Moustapha sama doomu ndey moom de du toog benn jour te ñëwul seet si ma Moustapha sama doomu ndey temps may dem la ñuy woowee sa yaay booy way naa usumu ndaaw way naa yaadi way naa Pademba ak Tafa ak Mohamed Mbaye sama doomu ndey yaa ngi noonu yee yee Idi Sané Idi Idi Sané ba may doori dugg si way mi daga daan ñëw di ma enregistré naan yaay sama manager Idi yow du ma la musa way naa Pape Niang way naa Ibou Anne woy naa amit ñang mm, sama doomu ndey yaa ngi noonu dangeen ma yàgg bëggul lool ak mama yélla wa yélla ndeysaan ndeysaan tim baa ngi noonu bu leen doon lim xam naa sax fi la ñuy fanaan waa Malika dañu ko commencé jox bopp parce que dañu gis ni am na benn xale boo xamante ni man sax désormais mun naa ko woowee le Benjamin de la musique sénégalaise bu leen neexee yéen ñuy seetaan mën ngeen ko woowee doom Sidi Diop mais man mun naa ko woowee le Benjamin de la musique sénégalaise moom mooy caatu musique sénégalaise alors Marème li ñu desee euh, Momar li ñu desee ci waxtu bariwul ndax bëgguñu la fii téye xamu temps yi essage bi du ñàkk téléphone bi mi ngi sonné gars yi ñuy woote naan Momar kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw suñu kër alors Momar ba nga ba nga defee concert bi ci biir plateau bi ñu ngi ko doon seetaan dañu gis ni di Diop dafa ne nga woo ko si numéro ba d'ailleurs dafa joxe numéro ni nëbbatuwul joxe numéro direct numéro téléphone boobu mu joxe yéen a si woote wala bi ngeen si woote est-ce jot ngeen ko wala jotoo leen ko. jotuñu leen ko. Mm-hmm. Euh, doxul quoi en fait mun nañ mën nañ ko tuddee loolu. waaw doxul d' accord léegi dafa wax également ni ménager am muy mm-hmm. euh, Matar Subatel. waaw dafa lay invité si labelam ngeen waxtaan ngeen signé comme ça après mu intégré ci labelam. Mm-hmm. démarche yooyu ndax ñoom ñu wax jooju ñu waxoon ñu ngi ci wala nekkaguñ ci. waaw ah, ñu ngi si ñu ngi ci bu baax ménagère si vidéo wax na sax ñu indi ma foofu ma ñëw. Mm-hmm. wax na ko mais woowaguñ la yow téléphone ñoom. waaw woowaguñ. mais yow nga seen numéro. Hmm? yoroo goo seen numéro. numéro bi mu Sidi Diop jox rek laa yor. boobu rek nga yor. alors Sidi Diop staff Sidi Diop ma tax suba teel xale baa ngi nii woo leen ko ngeen waxtaan ak moom xam naa ne di ngeen ko def mais def leen ko gaaw parce que tout simplement euh, dige bor la te sax nag dige bi sax dige bu neex la ndax kii boo leen ko jàppalee talent la boo leen ko jàppalewul talent la donc xam naa du ñàkk euh, euh, les heures à venir dinañ la woo du ñàkk ñoom dinañ la woo contacter la comme ça ngeen ngeen dem officialiser mbir mi Sénégal ñu jàppale la bu baax a baax ci sa carrière ah. alors lan ngay lan ngay daanele émission bi kontaan nañ bëggoon nañ mu gën a yaatu euh, mais bëgguñu la fi teelu yàgg lan ngay daanele émission bi Dakar Net loo ci mm. wax Ouzin bi toog Rama loo ci wax nga tëjee ko après ñu ñëw euh, tëj waxtaan bi waaw mm. waaw maa ngi nuyu waa Dakar Net bu baax a baax mm-hmm. leen ziar bu baax mm-hmm. yal yàlla fay seen mm-hmm. dégg fu sori waaw ndax dangeen a baax bu leen bu ngeen sañoon ni ah xale bi duñ ko invité. Mm-hmm. ki booy la mais seen xol bu rafet waaw ak ak am confiance man ni ngeen loolu tax ngeen invité mi waaye yal na leen yàlla fay seen xol bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. alors kan ngay gërëm kan ngay gërëm ci émission bi. a ah, maa ngi gërëm sama mu sekk. di gërëm moom Maguette. ak bàjjen Koura. waaw ah, ak bàjjen Daba di leen gërëm bu baax. Hmm. ak Yacine Dior. Hmm. maa leen gërëm. Hmm. di gërëm samay ñaari waajur. ak Rama ak Rama. waaw moom tamit sonn na ci man baax baax. di gërëm maam Maretu Ngom bu baax. ak papa Tafa Gueye. di leen gërëm ak papa Seydou. maa leen gërëm bu baax a baax baax. ndax ñooy merci beaucoup kontaan nañ ci émission bi. Ah. merci. <laughs> alors euh, c' est assez normal ah c' est assez normal xale la 12 la am euh, donc dinañ ko comprendre en euh, de temps en temps parce que wax ci caméra yombul donc voilà dinañ ko comprendre que j' espère que yéen tamit di ngeen ko comprendre que ni macha allah ngeen ñaanal ko baax a baax également yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan site d' information bi xew ci jamono euh, tudd Dakar Net Ousin nekkoon ci euh, présentation bi émission bi tudd talent à l'honneur talent à l'honneur seuls les talents sont maa ngi béggee bu baax a baax Abdou Khadir euh, di sama frère dam koy sonal saa su ne ak nga xamante ni moom mooy jigéenam xaritam nekk bras gauche am nekk bras droite am kooku mooy bisou ah bisou borom la borom décembre daal anniversaire baa ngi noonu ñu ngi koy préparé bu baax a baax merci beaucoup jaajëf